mais waxtaane moi, Cheikh un soufi panafricain au service de la diffusion de la pensée islamique pourquoi un tel sujet parce que le combat aujourd'hui le siècle que nous vivons c'est le siècle de la communication communiquer sur Cheikh c'est lui donner une dimension planétaire une dimension internationale collègues, Cheikh Sénégal Khadjoul Nimzad, Cheikh Ligayem, gis ngeen ni ñuy jëlee science politique di ci xool histoire yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dafa jël islam jële ko ci néeg mu romb giir romb kuréel romb gàdd romb askan romb xeet romb réew tudd umma loolu lépp di étape kon c'est le plus grand politicien Cheikh na était un politicien qui posait des actes politiques la wax acte politique bi ngay teg nii du pour yow pour ëllëg la ki defar constitution dafa bañ ëllëg nit ñi réer ci loolu nag la ñu war a waxtaane nag ni kon Afrique kenn jiituwu ko ci te ay mbindam aussi ci Afrique daf ko ci tënk lu bare bare bare bare bare bare xam naa bu ñu gënoon am jot mais comme que man maa doon naan gars yi léegi na gàtt dinaa ko gàttal li may wax léegi rek mooy euh, c'est dans les c'est dans les périodes des moments sombres et remplis d'inquiétude que naissent les leaders qui sortent de l'ordinaire avec une vision éclatante qui illumine les visions, dissipe les craintes et angoisses pour éclairer la masse. Considéré pendant longtemps comme un continent au vide culturel immense, Cheikh Mohamed je veux dire l'Afrique, le saint d'Aoudou, a œuvré toute sa vie pour l'éradication de ces accusations fallacieuses qui n'honorent ni l'Afrique ni les Africains. Pendant cette période, certains Européens affirmaient que l'idée de Dieu et de sa puissance est confuse dans le cerveau des Noirs. Ils fondent la branche Khadriya euh, Fadelia ayant comme noble mission la propagation de l'islam, qui passe fondamentalement par la création d'écoles coraniques, la formation spirituelle et intellectuelle des musulmans sans viser confrérique, avec le zikr comme euh, levier de communication. Il imputa cette noble mission sans quitter Aoudou à l'ensemble de ses fils. Beaucoup d'entre eux ont ouvert des écoles, écrit des livres, formé des érudits en Afrique et quelquefois dans des endroits où la population était hostile à toute pratique d'une religion monothéiste. Au prix de leur vie, de l'éloignement de leur famille, de la solitude, de leur santé, quelquefois fragile, ils ont mené avec courage et détermination leur mission. Cheikh Sabou Abi a perdu ses frères. Certains reposent à Saint-Louis, d'autres au cimetière de Ngoumengueoul. Ses neveux et son fils comme Adramé, dont le nom est aujourd'hui intimement lié Angoumba, la Terre Sainte. Ils ont trouvé sur leur chemin des animistes très déterminés pour lutter contre l'implantation de l'islam. Ils ont aussi vécu le racisme, la xénophobie, en bravant un climat hostile qu'ils n'ont jamais connu. Ils ont été, malgré tout, jusqu'au bout de leur mission. Cheikh Nature Sadbouki était loin d'être le fils aîné de cher Mohamed Vadel, quitta à la cellule familiale à peine sorti de l'adolescence pour concrétiser la volonté de son père, l'islamisation pacifique des peuples. ci li ma ko mën a wax rek ci olof mooy Cheikh na dafa di nit koo xam ne ci benn bàkk bu mënoon bind Cheikh Ahmad Vadel naan maa ngi sant Cheikh Mouhamad Vadel ma yëgoon ni Afrique dafa xiif diine mu jël njabootam def ko asakal islam ngir ñu am jàmm ak salaam. ñu ngi sant Cheikh Mouhamad vada ma xamoon ni Afrique dafa xeeb diine xeeb diine mu jël njabootam def ko asakal islaam ngir tey jii ñu dund jàmm ak salaam moo tax aleyhum salaam madame salaam. Cheikh na Cheikh bu loolu la def doomam yépp da leen jox mission te mission boo ci gis rek nattu la dem foo xamul dem foo musu la def dem ñoo xam ne ni bokkuleen aada bokku leen cosaan bokku leen làkk bi ngeen di làkk bokku leen xeet bokku leen gis-gis te bokku leen diine. gis nga boy xool Cheikh na Cheikh Mad Cheikh sadbu ak Cheikh Mad Fadal nekkuñu woon ay góoru yàlla rek ci benn endroit bien défini dafa am l'islam urbain l'islam en milieu rural nekkuñu woon foo xamee ni fu sedd la rek dañ doon xool fan la njàmbat nekk fan la jafe-jafe nekk ak ñan ñoo gën a soxla islam ñu dem fekki ci leen xoolal rek ni ñu tasee njabootam dinañ ci ñëwaat un soufi en mission Cheikh na Cheikh sadbu était un soufi dont la vision dépassait le cadre confrérique. Il sillonna l'Afrique subsaharienne avec trois objectifs bien définis. J'avais dit ce matin quatre propager, publier, produire et partager. Nous le donnons à tas xam-xamam te yalla tax bokk gis-gisam ak Talibé, yi ak ñu dul te yalla tax. Le soufisme ou tasawuf est une démarche qui vise la purification de l'âme loolu mooy tasawuf wala bokk na ci définition tasawuf yi raxas sa xol génn rëy génn iñaan def la nit jikko yooyu moo tax léegi li Cheikh Pape Gueye wax ne boo ko amee rek mooy tu as des prédispositions pour nga mën nek nekk góor yàlla yàlla xamal la len lo xam ne ni kenn du ko jàngal xam nga xol bu set dafa am solo te mom la fi Cheikh na nek won muy nek docteur xol bi raxas xol génn rëy génn iñaan génn tiitar te du la sonnal def la nag li nga xam ne ni moom la yàlla mu ci jàmm muy li nga wax léegi moo tax j'avais bien choisi ne la na nga def commentaire bii muy li nga xam ne ni bàyyil nañu ko istiqaama ragal yàlla mais li nga waxe baat bi dafa neex sax muy wéet gore tasawuf boo déggee ci plusieurs langues man gis naa ba tàyyi ay nit di ma ko laaj ça veut dire quoi mais damay naan rek c'est l'éthique L'éthique, c'est quoi Agir de telle sorte que la maxime de tes actions puisse être érigée en règle universelle. fexe ba lépp loo teg sa tànk ak foo dem mu nekk royukaay te noonu la Cheikh Saad bu doon dund Cheikh Saad bu sax li muy jàngal bariwul day jëf ngay gis day moom sama wax un jour benn bis may waxtaan ak sama waay sama way jur di waxtaan ak moom ci mbind waxtaan ba pare mu ne waxtaan bi neex na de waaye na nga fexe ba li ngeen di wax na nuroog seen jëf dafa am solo lool loolu lañ Cheikh na jàngal loolu lañ Cheikh na jàngal il fait polir le cœur en se souvenant de son Seigneur par le à haute voix kooku qui les défis qui nous attendent Li, livre Cheikh Abdou Khadre Jeylani la te bari na ci war nañu góorgóorlu ba ag ak fi ak Cheikh Cheikh te ñu ngi ci yoon siral asrar le secret des secrets Amna ci beneen bo xam tout ce que Cheikh Abdou Khadre Jeylani def na ci khutba laata muy génn adina. dugg nañu légui ci université yi te comme que dugg nañu ci xolu xaadir ya Cheikh na dugg na ci xolu xaadir nu ñu jema jàng gën ko mëna tarbiya gën ko mëna a li Cheikh di haj malik wax léegi c'est possible œuvre Cheikh na demal ba ci kanam di nga comprendre li nga xamé ni jamono daf ko soxla ndax dafa rawon jamono il était en avance sur le temps déggal ci li ñuy wax alcorane mo ni du bët la nit di gisee yàlla léegi El Hadj Malick wax na lan mooy gis yàlla xol bu rafet yow ma laa yanfau maalun wala banun ila ma ata allah bi xalbi salim du ñu yóbbu ci yàlla dara mu saf ko dul xol bu laax loolu nag la ñu Cheikh Saad bu doon def ni taxas suñu xol def ñuy jaamu yàlla def ñuy nit ñu gore xam nga gore mooy kan mooy nit koo xam ne ni bu ñàkkee sant yàlla bu amee bañ a fàtte yàlla lu mu am bokk ak nit ñi loolu la ñu Cheikh na bàyyil ah kon li mu doon namm ci taalibeem mooy fexe ba ku nekk am ñetteelu bët am ñetteelu bët le soufi se dit que le monde est terraqué dafa ne àddina lépp suuf la terraqué c'est composé d'eau et de terre Cheikh na Cheikh Saad bu donc n'habitait pas une région bien définie comme tu l'as bien dit il habitait la terre suuf la dëkk te boo xamee ne rek góor yàlla suuf la dëkk nga jàng aaye bi min ha wa fi ànnu iddukum wa min ha nuxrijukum ci souf lañu yalla bindé ci lañu ñu té ci lañuy ñuy kon lolu moy la vision que ni ñun souf lañu vision philosophique on est ouvert té fu nek mën nga fa dem té fu nek mën nga fa dëkk té tu n'as pas de frontière voilà ce qui explique que le peuple Fadélia voyageait pour instruire mais pas pour gagner de l'argent mm-hmm. bu doon gagner xaliss rek mo nañ ko am ci anam yu bari moo nañ ko am ci añ yu bari mais dañu amoon benn mission boo xam ne yebbuñu woon seen way jur li ñu sant mooy ngeen xamloo nit ñi yàlla te mission boobu bi ko njabootam di def ay ay ay du ma ay mag lañu mais comme boo xoolee ku mel ni Cheikh Saad bu jàngat bi nga ciy njëkk a jàng mooy tu sais on peut être enfant sans avoir d'enfance on peut être on peut être jeune sans avoir de jeunesse on peut être vieux sans avoir de de de vieillesse de, et de sagesse Cheikh na nag moom. Dans la phase d'adolescence daf ko tëb dafa kii rek nekk ca ci niñ ko doon waxee kon yàlla ñu ko yàlla fayal la diffusion de la pensée islamique euh, zawiya la cheikh na yoroon la zawiya de cheikh na cheikh est un centre d'études important on y compte plusieurs écoles qui au premier degré avec une centaine d'enfants garçons et filles sous des tentes naturellement apprennent le Coran kooku tubaab yee ko bind tubaab yi ñoo ko bind ci Cheikh Anta li ci gën am solo ci wax ji te wax ji c'est vraiment une marketing un marketing personnel nee na jamono boobu Cheikh Anta bi mu yoree école am te bii bi ñu koy natt mu nga woon Tuwési boo demee ci biir daara gi da nga ci fekk góor da nga ci fekk jigéen góor ñi ak jigéen ñi ñëpp daan kon bu leen fàtte loolu njabootu Cheikh Cheikh Sadbu abi góor ña Cheikh Ahmed Fadal ak ci kër Cheikh Sadbu góor ñi ak jigéen ñi dañ te alim damay bañ a anticiper rek di wax am nga di wax di wax sa bopp dafa dul am solo te du question boobu sax ndax kii toog nii di Cheikh Baye Cheikh di ma ko waxee léegi man mii gënu ma koo xam sama bopp te gënu ma ko xam sama wayjur Cheikh Ahmed Djimbira bi muy ñëw Nimzaat nekk xale bu ndaw Cheikh Saad bu daf koo jël jox ko soxna sàllam bu sàllam bu su ma juumul mooy tawu Cheikh Saad bu bu jigéen moom ak Cheikh Mahfou ñoo bokk ndey ak bay Cheikh Ahmed Djimbira moo tax ci delloo njukkal taawam sàllam bu xala waaw moom la ko tuddee

xale mag ndaw daal jël jamono boobu ay jàngalekat di leen fay jamono boobu dafa daan jël ay jàngalekat di leen fay jël ci njabootam jarbaatam te ci xam ne yàlla na yàlla nañu ko yàlla fayal dama doon wax naan euh, benn wéy bu mu doon wéy lébu yi naan leen yaatu ngeen mbootu ni waa ansaar mooy Cheikh na Cheikh Saad bu yaatu nga mbootu ni waa ansaar koo boot kenn du la rogganti walaay asi amul benn njab benn mbokkam bi cheikh na génné ci Cheikh Ahmed Fadal génn fa nek xale bu ndaw te uuf la wala mu jël sa dom jàngal la wala mu yar la ak i magam ak jarbatam be cheikh na est une école cheikh na est une université comme l'a dit Cheikh talibou nañu gëna gëstu ci lolu jàngal jigen jamono bobu ba jigen ñe yoron liñ ñu xam-xam dogal bu la nexé neexee ndeysaan

jërëjëf yàlla na yàlla fay di waxit ci technique de culture yéen ma ko gën a xam téeméer yoon maître arab yaa ngi nii boo xoolee ci mbindu Cheikh na Cheikh na dafa demoon ba maîtriser woon les techniques de culture yoo xam ne kenn xamal nu mu demee li ñu doon wax léegi boo xoolee wasilatu innal murada wala nga xool bi mimin wa xaa in wa mimin wa daal xoolal daaj bu ko Cheikh Sadbou bindee mooy li nga xam ne nii tey jii boo woon étudiant ne leen defal ma commentaire de texte bu Cheikh Sadbou ñu bàyyi duñu trouver il a écrit sur la base d'un texte qu'on appelle l'acrostiche acrostique acrostique ku déggul tubaab doo ko def mooy foo ci moo bi miimin waxaa in wa miimin wa daal miim xadam dellu miim del di woy maamam ba pare école am ñépp dañ koo mën wasilatu say xus yoo ulaa saadul abi man sama wa kàmbu di ko na damay jël siin nga nga xam ne moo sa tour lolou la Cheikh na melone ci technique de culture yalla nañu ko fayal ci barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, c'est un poème aux strophes où les initiales de chaque vers lues dans un sens vertical composent le nom ou un mot-clé Cheikh Tourade def nako ko euh une vision panafricaine au service de la spiritualité lan mooy panafricanisme c'est toute personne comme ni ma leen qui met son intelligence au service de la libération de l'Afrique Afrique ko tax a jóg. Cheikh xoolu On awdu wala pas mhm. xool na te gis ngeen euh, au-delà du centenaire mhm. di ngeen gisaat Cheikh na ci benn anam. Mhm. dans les années à venir parce qu'aujourd'hui Cheikh na est devenu un objet d'étude Inch'Allah rabbi Inch'Allah allahu rabbi est un objet d'étude yow nga ne ma ñaata cinq ah kon xanaa ma def comme Malick léegi mu ngi noonu Malick ñaata ma dese. ba ma teg woon léegi waaye Ousmane maa ngi maa ngi kii gàttal. une production intellectuelle boo xam ne nii li ñu naan panafricanisme rek moo ko taxawoon a jóg. au début de son œuvre bi Cheikh na di wax yéen a ma ni ma avancé moo tax le panafricanisme est une noble cause naa ci avancé yaakaar naa xam ngeen ko il implique aussi il s'implique sur les problèmes des africains bo xolé mbindu Cheikh na Cheikh Saad di ci gërëm Cheikh mi tok Cheikh Yérim ndax euh, ci vulgarisation ak sur ses écrits ci l'ont inspiré wu ñu baree bari pour nous comprendre au moins lan la Cheikh na doon wax ak ku mu doon waxal ci limu traduire. Cheikh na dafa tok xol dama ni won légui si Cheikh na était un Cheikh na devait être un sociologue si la sociologie s'est définie comme l'étude des faits et phénomènes sociaux.

disciple am élève am aussi dal di bindat lu mel nonu ci Afrique la jël xol muy lan ya rabana inna shakwana za zaman bi Cheikh tourat ci adina jantub njub sona goudi réer fenk na ndeysaan moy liñu dul tay ñom ñoko bind de kon bur wax len rek ni suñu cheikh bi lama doon way du won dañuy way ay jikko ak yenen ak ma ngi ñaan mais c'est des intellectuels purs et durs li le matin comme le Cheikh Talibé waxee un intellectuel c'est toute personne qui met son intelligence au service de l'émancipation des consciences et ceci quel que soit le prix à payer Février, yi bàyyi nañu njabootam son nañu ak lo lepp gis nañ ko limay wax nan len ci gàttal ngeen mo wax un soufi panafricain cheikh na mbindam sax mënu ma ci def parce que lepp ñom Hadj malik ak Cheikh Pape wax nañ ci li ki dess jaar-jaar bi ak sa fonction euh, Cheikh Talib bi wax na ko may demeen di wax lenn Cheikh na dafa dama ci wax Cheikh na dafa dugg biir Sénégal li ma ko waxee woon le matin en 1881 pour ngeen wax li ko Afrique jaral dama koy répété waat 1881 da ni Sénégal nañ ko tej ndax rien que dans la ville de Saint-Louis en l'espace de cinq mois il y a 600 morts et les 600 morts c'était au niveau des colons dont 22 médecins et pharmaciens hôpital yi ñëpp di daw ku nekk di génn Cheikh na ni saraax dal di dugg biir biir ndar ne gaa yeen daw de man duma taw jamono boobu lan moo amoon amul masque amul dara damay wax n'avait qu'un seul passeport un un lay wax passe spirituel il a défié les gestes barrières dugg bir Saint-Louis dugg guen febar ba wer ci kattanu yalla ak gouverneur lano lano dal koy woy woy bo xamni ne dama bëggoon bis bu nek xadri di ndax woy ba musuma dégg gouverneur woy ko gor yalla mom wax nako légui bo si wax ci waxit ci gattal Cheikh na ak action yi Sénégal ndeysaan dafa dem ba benn moment bi muy am 65 ans gouverneur général yi ak yépp xool nañ ko bu baax a baax jàng ko en principe doon nañ ko jéem a fexeel mais ñu ne kii mag la mag la te bu loolu weesoo matul ñu koy bundu xatal ci dara xam ngeen ndax lan ndax nee nañu amul ndono <laughs> amul ndono bu fi jógee li lépp fay لولا كولومبي واخون تسي اكريس إيه نوار سور بلان الله لا اله الا الله لا ان الله لا اله الله لا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الله إن الله لا جئت بما أمدى من الفضل والقضاء على الفضل والإحسان أحمده حمدا لا إله الله الله لا إله الله لا إله الله محمد رسول سعيتها وسهلتها المقاصد لما حوى من مدح خير ما والصلاة والسلام على رسولك تفيد الحق سبيتما الحمد لله على أمين شكر الله على السلام عليكم ورحمة الله je vais essayer, Cheikh, je vais essayer, Inch'Allah, de résumer le maximum possible. ان شاء الله تعالى دي سما خل دا فدم سي صلى الله عليه وسلم بما اين الذين زعموا انهم راسخون في العلم دون اهل البيت انا نفوق ني ام ناني خم خم ولا بوك نان وليس واكر يونتي سي فري on est dans le temple du savoir man bi ma fi duggee xaw naa am tuuti de poule ndax 2006 bi ma amee sama bac ma wara dem Soudan jàngi mu amone xeexu Darfour Bob, en 2007 yàlla def ñu orienté ma mu xaafizatul arabiya fii ma tàmbali fi tuuti ñu réorienté ma Tunisie li la mom fa yóbbu tax bi ma fi duggee yaram ba daw boobu xaw naa ko yëg fa tabaarakallah di ndokkeel étudiants yi di ndokkeel waa kër sajiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xasan ibnu limam ali ak zeyno abidin ibnu xuseyn fa am benn waxtaan bu cheikh na nekk nettal ci alsina bi muy wax ni seen maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam دين لين بن خم خم بو خمانتني لو أبو حبه لقيل لي أنت أو أنتم ممن يعبد الوثنة سين مام خمال نلين خم خم بو خمني سولين سنكو جنة ونيوم نبوالي لين سيني جامو خرم داخل صلى الله عليه وسلم On est dans le temple du savoir, mais il faut savoir que l'intellect universel, moi, c'est Girouna Mohamed. mom kott la yàlla jàngal mom kott la yàlla de lo xamantene sen diggante la alquran dafa ne va awxa ila abdihi ma awxa la mu ko dee dee naa ko sallallahu alayhi wa sallam xeetu déyante boobu la ne wa bayna rabbi sama ak yàlla suñu borom sirrun azim amna na lu ñu fa déyante la yasmauhu malakun muqarrabun benn malaayika xatta jibril dégg ko daxaada an il qiyaasi man anhu qaad xayrul malaayika alkiraami wa saad kon fekkewul kon jibril puus na beneen yonanti tamit fekkew loolu mooy wirasatu ahlal bayt xam-xam yi nga xam ne wa xussila ma fi sudur day jóge ci ay dënn dem ci dënn moo tax cheikh na su ngeen toogee ñuy yëkkati kàddu seen kanam dafa fekk ne rek nit day bëgg léeg-léeg njaboot di àddu muy békk ndax lii la maam Cheikh na Cheikh Saad bu def li gënoon a jafe ci jamono mooy maye wilaaya maye mbaax Cheikh na Cheikh Saad bu nag gën a tabe àdduna bi yépp ci maye wilaaya waaw wa kam unaasin al fatha bi nazrati am na ñoo xamante ne ñu ngi am ubbeeku ci yàlla ci gis rek Cheikh na Cheikh Saad am na ñoo xamante ne ñu ngi am ubbeeku ci yàlla te xam ne dinañ yegg ci yàlla ci gis ku cheikh na cheikh sad bu geureum suma jele exemple cheikh mohammed Ali Sow li yóbbu cheikh aljuma ci cheikh na cheikh sad gis halam gis sifatam نحن رجال الذين صح قربهم وكلنا بشهود الله مأمور يحبنا كل من نرى سريرته نوى نعم، يبغضنا العميان والعور بول نيت كاس لامو ديف على كل حال داي ديف تاثيرات شي موم شيخنا شيخ صاد داي يار نيت با سو غيسه نجابوتام دا كوي خول خامنا كي كوكو جاب ديم سي يال واخوما شيخنا نجابوتي مو يار موتاخ موم موهب الالهي لا سيت ان دون ديفين سيت ان دون ديفين بو يالا جوخ شيخنا شيخ محمد بعد بن مامين قبلة الناس في زمانه أه، بوغي سي تاي قصيدة بدن كوي دن تي تنك أي بيت يغات دخ شيخنا الشيخ سيد الخير ابن شان محمد بعد شان محمد بعد يالا ما ينكو نجل لبني وزم لبنان ويكو جوكو تي ممرك ولي ولي مكاشف muy doom muy ku jokk ci moom muy jaam yi képp ku nekk ci xadaraam rek yonent bi nangul na la loolu la ko yàlla defal waaye cheikh na cheikh saad boobu bi mu génnee ci Cheikh na Mouhamad Vade yàlla dafa am lu mu ko jox xasalahu muy faydul wëh bi muy leer yoo xamante ne balluwaayam day ball ba ilaa yomina haza du jeex Cheikh na Cheikh Saad bu temps ak espace mënu ko tënk moo tax Cheikh na c'est un Sénégalais ou c'est un Mauritanien non Cheikh na Cheikh Saad c'est un citoyen universel Sayyiduna Mouhamad صلى الله عليه wasallam yàlla dana ko wa maa arsalnaaka rek illaa rahmatan lil alamin dama la wàcce rek nga yërmande ci lu yàlla bind cheikh na cheikh Saad Bou ci wàllu wilaya rahma muhda la c'est un cadeau bu yàlla jox àdduna bi yépp moo tax temps ak espace dëgg tënk ko amul kenn kuy def mu bàyyaa xatta nga nekk doomu cheikh na Mouhamad Wade bi cheikh na génnee xawlu cheikh na Mouhamad Wade nekkatul ci kaw suuf amul kenn kuy egg ci xadratu ilahi am wusul ila allah wa damanul wusul xam nga nit man ne yegg ci yàlla ba kenn du ko garantie nit man ne nek wëli te kenn du ko garantie mais yegg ba nopi nga am damanul wusul ñu garantie la ba doto yaqku koku cheikh na cheikh sad lu ko yàlla defal motax cheikh Sidil khair ibn shana cheikh mohammed Vadul donte cheikh na Mouhamad Vadul mooy baayam mais bi mu soxla wusul ila allah dafa ànd ak i ak ay rahilat ya mu yëg mi ay géléem djubali ci Cheikh na Cheikh Sall bi mu ñewé nak xasida bi may interpréter pas traduire mais juste interprétation parce qu'on dit que traduire c'est trahir bi muy ñew ci Cheikh na Cheikh sil la xam na ne am na nubuwa manam nuru nubuwati nuru nubuwati mu ngi ci mom mais Moussa alayhi salaatu wassalam amon na nuru nubuwa amon na nubuwa mom Moussa. nekk na nabi nekk na mursal bokk ci ulul azmi nekk kalimul ab kalaamu kalimullah ànd ak li ko yàlla may ci garaat yépp yàlla ne ko fokk nga jokkoog xudar aw xadir mu ne ko hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushda fokk nga ut ku la jokkale ak doomu koo mën a doon fokk nga ut ku la jokkale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam بشيخنا إن الوصول للإله حق وعنه لا يعبرن النطق ومن له من له أنكر فهو الفاسق ومن به صدق فهو الحاضق لكن بدون شيخ لا ينال والشيخ إن نصحته نلت الوصال شيخ مربي بي su la laayee biir maanaam sidduqul mahabba bi nga koy won jaayante bu la laayee bi rek nga yegg ci yàlla cheikh na cheikh saad bu nag sooy dëgmal buntam di ñëw ngay ñëw ci moom na nga yëg ni yow indi woo sa bopp dafa am xadis boo xamante ne je suis en introduction et je vais essayer d'être très bref dafa am xadis bu wax ni yonent bi di wax sallallahu alayhi wa sallam ni na ngeen yëg ni kenn ku si nekk ci yéen amoon nga bàyyi ci ruux balaa ngay ay bàyyi ci jëmm val arwaaxu junudun mujannada وما تعارفت منها ائتلفت وما تناكرت منها اختلفت كو بغ شيخنا شيخ صاحب رك ماي يالا لا دوينا سك دا شيخنا مو تان لولو تي ياو نديك غي نيو تي مو موتاخ شيخ سيدي خير راكام لا نيو بوك شيخنا محمد فات مي فوق مو نيو تي شيخنا شيخ سعد بو ام قضاء الحاجات يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك شيخنا bi mu ñëwee bi muy ñëw rek yëg na ni am na lu lu mat ci moom te amu ko woon ba muy jógee xawdu te boobu jëflantewul ak cheikh na cheikh saad ci ñëw bi rek ci tukki bi bi mu ñëwee ba gis xadara cheikh na cheikh saad ba ak la ko wër xaal ya mu fa gis donte doom cheikh na mouhamad ba abdullah xam na ne am na lu yokkeeku ci moom bi cheikh na fajee ajoom nag daf ko def al wasiya am lu mu ko dénk الوصيه هي امر مطلق مفيد القران وخنا تشيلو بارئ فتبارك الله مع الاسف افيك لو تان بمي دم افنكو عليك يا اخي ما نجلي دينك يا سما مبوك تي مبوك جيموكو واخ شيخ سيدي خير خامنا ني مبوكوك شيخنا شيخ صاب بو دوكو جيري بو دون مبوكو كاسه مو نيو زياره كو داف لي واخ زياره دوكو داف استمداد daf koy def ziaratul uxuwiya dellu waaye am na loo xamante ni soo ko bëggee foog nga jaay sa njuréel te cheikh na cheikh Saad bu muy gën a nekk tout tànk dafa jaay njuréelam ci cheikh na Mouhamed Vaad jël wàllu njuréel bi teg ko fële bi mu ne waliya murabbin laa yujara inayatan wa fadlan wa man fi lkawni qad an lahu la iddul bàyyi ni mu neexe doxalu ko diggante ma cheikh na Mouhamed Vaad عليك يا أخي بالاستقامة قصيدة بي مدفقة بحر رجاز مستفعلا مستفعلا مستفعلا ما نقول دينك يا شيخ سيدي الخير استقامة نغا نعم، ومتو تي ليال يالا كلمة استقامة تنقسم على ثلاثة أحرف باتو استقامة باتلا وعي بوتنك بو تنك معنى تي بير بات nit du am istiqamatu moy ce qu'on dit la droiture nit du ko am muk fek ñett yi bàyyiwu ci xel Cheikh na Cheikh Abdul Qadir Jilani mu ngi koy wax ci ci terem bi al ghuniya mu ne al istiqama bi si njëkk mooy xawfu min al jalil wet gore ci yàlla te koor li rek lay jàngale wet gore ci yàlla moo tax suñu maam Cheikh Saad bu djoub bi muy wax ci kër cheikh na lenn yaa ahlan imjaati yaa man fadlukum baana bayna al ka fadli chahri ramdaana weeru koor ni mu mënee jàngal nit istiqaama ni mu mënee jàngal nit wéet gore maanaam nga tëju sa néeg kenn gisu la sa frigo baar fees del yow yàlla donc ñemewoo foo jël leen ngir la na nga ne dangaa woor mu ne nimjaat nii la yare doomu aadama mooy wétte gore al khawf min al jahim ne ko benen bi moy ban mu ne amalu bi tanzil fexe beug su jàng xam ndax ilmul kitab mo lay dimbali nga xam ni ñi jamo yàlla mais xam yàlla cheikh na cheikh Saad bu ne lol duñ ko jàng kooku mu bàyyaa ngay def nga def mujaahada ñu defal la muraqaba ngay yëg lu say morom yëguñu li yam yànk cheikh na kon istiqaama amalut bi tanzil jéem a xam naka ngay def ba jaamu yàlla naka ngay def ba xam farata xam sunna xam ngëne manduub xam makruhaat yooyu nag njàng koy maye te cheikh na cheikh saad bu dafa jàng te jàngale bi xaasi tuway zit daaral yumni wal baraka inshaa man qadara sukuna wal xaraka banaytuha malja'a lil muminina walam تزل منافعها للناس مشتركة فذا تعلمه وذا تطعمه وذا تؤمنه ما المصطفى سلك هذه متخ ديسان شيخ ندال كان خاون لمدون بمي وخ بفوفو تي توي تي دارام دي ام بن هاتف بوي وخ اك موم الهام رباني نكو وانت نك داغا خامني توي زيت في جوغي منكن هذه نيتي والله يعلمها والمرء يجزى بما نوى ولو ترك من نين خامن لي منكن سمين يالا جخنا مكو واي نين ييك ني دال يينه ونا كو تباخ شيخنا شيخ سعد كون لولو لا شيخنا نيك دنك شيخ سيدي خير موي استقامه منكو فهي الولايه سيغا دوم دون دوم رسول الله دوينا كرامه دون دوم سيدنا محمد دا دوي سك كرامه وأن رسول الله جدي حقيقة أي افتخار بعد زاويته لن يوتتي لنا القرآن مخ إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دينا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد دوينا أكفاء السبب فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين دينا لا رجال ci مسلم ويالله فهي الولاية لأنه ما walaaya وهي الكرامه نين ومتو تي يالا دغ دغ موي كرامه ك شيخنا شان محمد الله نكا باقي جامو يالا رك لا صاحب لا اله الا الله عليك يا اخي بتقوى الله شيخنا شيخ سي الخير من سما شيخنا شيخ صاحب نينا لا نغا رغال يالا waruko jom ndax yalla waxna mamam yonenti bi ya ayuha nabi taqilla kon nak ragalal yalla te gis nga at taqwa بين كل رابية العدوي دفن التقوى حقيقة التقوى هو معرفة الله ما يفخ خام يالا نينو نيت دو خام نيت دو جيرني سلو مو خامول كون حقيقة التقوى ما يفخ با خام يالا سبحانه وتعالى منكو عليك بالصبر ما لي دنك نغا موغ خام نغا موغ اك نياك بخي امول كين كوي صوبو تي te nga yaakaar ne de yàlla dina la ko yombal nga am yàlla mu yomb déedéet loolu mënul nekk gis nga sabr inna allaha maa soobirin maanaam xaqiqatu sabr yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñii dañoo foog ne saxaaba yi ne gëm nañ la duma leen teg nattu dañoo foog ne dañoo wax gëm nañ la rek ma nangul leen ba fajj seen aajo si gëm nañ la kese loolu mënul nekk man yàlla dinaa xool lépp luy nattu teg ko seen kaw pour xool ndax seen cofeel bi dëgg la wala du dëgg wala qad fatanna allazina wala lam qas qad tahqiq wala qad fatanna allazina min qabli fala yaalamanna nuunu tawkid fala yaalamanna allazina sadaqu فلا يعلم yaalam wala yaalamanna alkaazibin fala yaalamanna allahu allazina sadaqu wala yaalamanna الكاذبين amul ku doon topp cheikh na cheikh Saad ci góor yàlla yi ko wóoroon yëpp lu dul kenn ku si nekk say xeet say mbokk dañ la génne say mbokk dañ la tam waaye ba nga ñëwee ñëpp nga jariñ ba tey nag mbaax googu ku ko bëgg boo fa tegoo rek loolu dal la ba tey buñ la jàppee dof rek fa bu buñ la jàppee dof rek nga doog a nekk nit ci yàlla kon loolu mooy sabr yoonu yàlla foog yàlla di la ko teg aleyka bi sabri liman adaka surtout nak ku yàlla pousse nga gis ne ki sa non la bul jàpp ken sa non non dal boko jàpp cheikh na cheikh Saad bi jàpp ko ñaar jàppe ko aduna jàppe ko bakkan an nafsu wa dunya habibataani cheikh na mu ngi may def siñ mu ngi na ma ni an nafsu wa dunya lak wa lillahi aduwataani bakke nak aduna rek moy nonu doomu adama fi may danale moy alayka biddiini wa alayka bilwara mu ne ko si nga sammu nanga samu, nanga nanga nga na nga na nga sàmm gis nga baat ça veut dire ce que ça veut dire mais ko lazim liman kana abuka yafaal sa baay shana muhammad Vaad li ko taggee mooy jamono jaamu yàlla li ko taggee mën jang alquran mën a tudd ilaha illallah mën a dimbali mën a leeleel na nga fexe ba la mu doon takkoo ci lu baax rek na nga ca takk suñ demee ba ci xasida bi gudd rek ne ko samaam su ne bëgg ngeen ko roy منها غرائب الفعال منها عشائر المقال دلت على ذاك الكمال المهتدى لم يجدي لومو مسا واخ عبدنا جانسي محمد صلى الله عليه وسلم لومو مسا جف عبدنا جانسي محمد صلى الله عليه وسلم كيغا خا بيتيم اك بيرم لب جانغالي دلت على ذاك الكمال مو انسان الكامل متى ابن عربي بمي اند باتو انسان الكامل مو من جمع علم الشريعه وعلم الحقيقة فقد تكمل أه، كشيخنا نك لواي بغ رك موني في لواي بغ أنا خامني يالا ديف نكو شيخنا شيخ سعد سو دي نجان الحاج مالك باخين باخين على باخ سوكو ديفلوبي وون دنا ياتو امول بن فان نو خام خام بو سعد بنول مات نك بما غنا سيدوير موي تفسير بنا العبار في علم القران bi yàlla ne sa maam yonente bi cheikh na alam yajid wa wajadaka dalan fa hada wa wajadaka dalan fa hada lii tafsirul aya bil aya mo koy firi maa la fekk yow yonente bi dalan ñu ne nga sànk fa hada yàlla gindil mais yonente bi nu muy sànkoo te mu jugee min al ilah te mu jugee ci biir tajalliyaatu rahmani yonente bi mi zati al ilah kon wa wajadaka maa la fekk nit ñi umpele la فهدا ما جندي أدنى بيب يا صلى الله عليه وسلم سنريهم آياتنا في الآفاق et آية بي en conclusion آية بي بغنا nous euh, les, les étudiants qui y réfléchissent سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق gis nga àdduna lu muy gën a dox ngay xam ne yonent bi dëgg waa kër Sayyidina Muhammad ñooy dëgg ak lu àddunay gën a dox certitude boobu di am cheikh na cheikh Saad Bou encore enfin bi muy wax ci xasida bii cheikh Mourabbi bi mu ciy wax di wax fléau yi xew ci jamono bii mais avant 1917 ba tey bi muy wax ne laysa alwali lazi bil ilmi yashtah wala lazi bi ulumi sir yantash wala lazi kashfuhu yudra bihi alxabar wala lazi situhu fi lxalq mushtah léegi nit ñi dañuy sangu di wér di ngir lan bu ñu génnee ñu joxoñ leen nit ñi dañuy tasxiir doomu aadama tasxiir ana yàlla su sàkkuteef yëpp lan la bayre sangu wérd tasxiir génn njoxoñ la ba cheikh na cheikh saab di wax filéwo yi ana léegi nag alal mooy mooy wilaaya alal إن هذا الزمان زمان خالص wa mbubu وإن لم wa in lam tanal يقول كي mbubu جوت شيخنا yaqulu kii lu ko jot cheikh na ñu ngi سنيو أمنا لين لم يأكل يو خم جنون خم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه والسلام عليكم